Bonjour, euh, chers auditeurs de Réum FM, ravi de vous retrouver dans l'encre et la plume. Mais aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le secrétaire général de l'US, l'Union des enseignants du Sénégal, euh, et vice-coordonnateur du G20, Gougnagna. Bonjour, euh, Monsieur Nya. J'ai, euh, en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est moi qui vous remercie de nous donner l'occasion euh, de prendre langue avec euh, vos auditeurs. Avant d'entrer dans le vif euh, du sujet, euh, mm-hmm. Gougnagna, permettez à nos auditeurs de mieux connaître euh, qui est notre invité aujourd'hui pour nous faire euh, l'économie de votre portrait. Qui est Gougnagna Ah, c'est en fait un enseignant, mm-hmm. simplement, qui a eu à traverser en fait euh, toutes les statuts, mm-hmm. tous les statuts, parce que j'ai été

euh, d'abord le, le, KM, c'est-à-dire le niveau licence. Okay. Ensuite, j'ai eu à être euh, mis en position de stage au niveau de la FASTEF. Mm -hmm. L'école normale d'abord, mm -hmm. ensuite qui s'est transformée en FASTEF. En FASTEF. J'ai réussi à avoir ma, ma complète. Ensuite, j'ai eu à faire euh, le, le, le KS. Ce que donc aujourd'hui, je suis professeur d'enseignement secondaire. Mm en fait, j'ai servi au niveau d'abord des régions. Mm Et le a eu à faire qu'en 2000, j'ai été j'ai bénéficié de la conférence des enseignants qui m'ont mis à la tête de l'amicale des vacataires mm -hmm. que j'ai eu à transformer grâce peut-être à un groupe, à un syndicat appelé aujourd'hui Union des enseignants du Sénégal, mm-hmm. US. Et vous êtes à la tête de l'US depuis quand Je suis à la tête de l'US depuis sa création en D'accord, mhm. Et à quand le prochain congrès On avait prévu de le faire avant la fin de cette année. D'accord, mais avec le Covid, on a eu à euh, des renouvellements. Mhm. Mais il reste que euh, certaines régions euh, au nombre de trois. D'accord. Maintenant, si ces, ces, ces trois sont renouvelés, et immédiatement on ira vers le renouvellement. Et je crois même que cette fois-ci, je ne serai pas peut-être candidat pour, un, nouveau, mandat. En attendant, nous restons avec vous, le secrétaire général de l'US, vice-coordonnateur du G20. Merci d'avoir répondu une fois à cette invitation. Monsieur Nian, le G20 vient de renouveler son bureau dans lequel vous êtes le vice-coordonnateur. Quelle est votre nouvelle feuille de route? Euh, va être déclinée. Uh-huh. par une commission technique qu'on a mis en place. D'accord. Ah, maintenant, c'est peut-être la semaine prochaine qu'ils vont se rencontrer mmh. pour mettre cela en, en relief. Mmh. Et nous serons chargés, le coordonnateur et moi et l'équipe qui nous accompagne, mmh. euh, à aller dans le sens vraiment de le, de, de, de, de, la matérialiser. En tant que coordination regroupant euh, des euh, enseignants ou des syndicats d'enseignants, le G20, aujourd'hui jusqu'ici, euh, n'est pas sur la table de négociation avec le gouvernement. Je suppose également que c'est une priorité euh, de votre nouveau bureau. Non, je ne dirais pas que c'est une priorité parce que vous savez, Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas d'être à la table de négociation. Mais de faire en sorte, que euh, le protocole d'accord de soit euh, appliqué. Mhm. notre préoccupation, c'est que l'on aille vers une école de qualité. Mm -hmm. Une école, comme le dit le paquet, une école euh, qui fait en sorte qu'on ait non seulement la qualité, l'équité et la transparence. Parce que je me rends compte que c'est un plan, c'est un programme que le gouvernement a eu à mettre en place, mm -hmm. mais vous vous rendez compte aujourd'hui que vraiment c'est une école qui est aux antipodes de la qualité, aux antipodes de l'équité, aux antipodes de la transparence. Mm -hmm. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que les problèmes soient résolus. Et Maintenant, mm -hmm. quel que soit, pas, nous aurons toujours un pour dire ce que école-là. Je Et... crois que mmh. l'objectif, c'est pas d'être à la table de négociation, mais de faire en sorte que nos, le problème des enseignants soit résolu, le problème de l'école soit résolu. C'est ça notre préoccupation. des décisions euh, euh du coordonnateur d'alors du G20 ont fortement influencé sur les décisions euh, lors de ce contexte de crise. est-ce un signal pour vous du G20 Absolument, absolument. C'est en fait euh, la feuille de jure Euh, euh, nous indiquera de continuer la lutte que le coronateur a eu à, à, à indiquer. C'est vraiment un chemin qui est balisé. par l'ancien coordonnateur que le nouveau coordonnateur euh, aura comme tâche de continuer. Maintenant, s'il y a euh, peut-être euh, des innovations à faire, nous n'hésiterons pas à le faire, dans le bon. Et donc, euh, comme vous l'avez dit, le comité scientifique va se réunir pour déterminer sa nouvelle feuille de route. En attendant, donc, toutes les revendications sont mises de côté, en attendant également que l'on décline cette feuille de route. Non, pas mis de côté. Mais dans cette feuille de route en compte un objectif, un cible, le cible, consistant à tout faire pour que l'État aille dans le sens de respecter ce qui a été objet mm -hmm. euh, d'accord. Mm -hmm. Il va sans dire que c'est peut-être la stratégie qui va être euh, revisitée, mais l'objectif sera peut-être le même. C'est en fait faire en sorte que ce qui est objet d'accord de, de, de, soit vraiment respecté.

il y a des agents de on la possibilité d'aller jusqu'à 65 ans. Mm -hmm. Nous nous aussi, il n'y une pénibilité qui euh, interdise que l'enseignant aille jusqu'à 65 ans. Donc, vous parlez de la retraite. Euh, l'âge à 65 ans. Surtout qu'on se rend compte que beaucoup d'entre euh, les enseignants ont eu à perdre des, des, de, le cadre des, des cours émergents. Donc, je que ce ne sera que justice que de leur permettre d'aller jusqu'à nos que nous recevons Gougnagna. Il est le secrétaire général de l'US, vice-coordonnateur du g Aujourd'hui, nous parlons avec le secrétaire général de l'US. Vous en êtes où par rapport à la validation des acquis, justement? Vous venez d'en citer deux. Oui, jusqu'à c'est le statu Vous savez que nous étions en grève. par a eu une pandémie qui était euh, là, euh, pendante, on ne pouvait pas continuer à l'ignorer. C'est pourquoi donc on a tout suspendu. pour aller dans le sens de euh, créer une convergence autour de cette lutte-là. Mm -hmm. C'est ce qui explique qu'on a eu à suspendre cette, grève mhm. Mais il, a, il va sans dire que rien n'a bougé. Au contraire, les choses à la limite euh, s'accélère dans le mauvais sens parce qu'on se rend qu'au moment où nous parlons, souvent de la carrière des enseignants qui est bloquée par une lenteur inexplicable, surtout au niveau de la fonction publique. Il est de même aussi euh, et Euh, au niveau de la sol mm de, de, de, des mhm. on se rend compte que ces, ces lenteurs presque la carrière des enseignants. Et... Il est vrai que euh, on se plaignait de cela, mais ça s'est accéléré parce que nous avons l'impression que le, le, la pandémie a signé presque le point de départ d'un immobilisme qui ne dit pas son nom. On se rend compte que de plus en plus cette lenteur-là est, est, est encore plus, plus grave au moment où Euh, les, les, les gens son dans la maladie. À la limite même, ils refusent de recevoir physiquement les gens dont la préoccupation est de prendre en charge leur carrière. Ils donnent des numéros pour mhm. que les gens puissent intervenir ou bien de des, des, des lits. Mais si vous intervenez à ces niveaux-là, personne ne prend. C'est donc une manière à la limite de bloquer euh, la carrière des enseignants. Ce que nous disons sont jusqu'à la dernière énergie. Et c'est-à-dire que cette année aucune de ces questions n'a été réglée. Aucune de ces questions. Au contraire, je me, je comme je l'ai dit, que les choses s'aggravent de plus en plus. Parce que les choses s'aggravent. Parce qu'on se rend compte y a certains des, des points qui peuvent être appréciés. Mm-hmm. par le rythme. Par exemple, si nous parlons de, de, de, de administrative, il y avait une lenteur qui est là, mais cette lenteur s'est accélérée parce qu'on s'est rendu compte qu'avec la pandémie, non seulement les, la porte de certains ministères est, for, est fermée, mm -hmm. mais on se rend compte que même la perspective que nous avait donnée en nous donnant des numéros où on pouvait appeler, ou bien des, des, des, des, des, des, des, des sites où on pouvait envoyer nos, nos, nos, nos, nos, nos documents, on se rend en plus que vous, vous envoyez des documents, ça n'a aucun effet, vous appelez, personne ne prend. C'est une manière de bloquer la carrière des enseignants, ce que nous dénonçons jusqu'à dernier. Cela d'autant est contradictoire parce qu'on se rend compte qu'on demande maintenant aux enseignants d'aller à l'école, mais il n'y a aucune raison donc que la fonction publique ou bien la solde ne, ne, ne, ne, ne reçoit pas les, les, les, collègues qui ont des préoccupations de carrière. Mm -hmm. C'est pourquoi donc nous disons que les choses s'aggravent. Non seulement, non seulement euh, les, que les choses-là ne finissent pas mmh. au niveau de l'application, mais on se rend compte que le, le mieux qu'il y avait même s'amenuise de plus en plus. Donc, une manière de dire que vraiment, euh, nous sommes désolés de constater encore une fois que la carrière des enseignants, oubien bien l'école d'une manière générale, n'est pas une préoccupation forte de. de Donc c'est un retour à la case de départ, si je vous comprends tout à fait, ça s'aggrave. En tout cas, c'est une manière de montrer que quand il y a des difficultés, ce qui n'est pas priorité est laissé en rade. Et l'école ne semble pas être une priorité pour ce gouvernement. Et euh, quel sera l'impact euh, euh, du côté de l'administration quel sera l'impact Euh, d'ici euh, quelques années Mais, mais l'impact, le premier impact, c'est que euh, les enseignants vont être frustrés et démotivés. Et la conséquence de cela, c'est qu'il y aura non seulement euh, une perturbation au niveau de l'école parce qu'on va pas croiser les bras, mm en plus, la qualité de l'enseignant, de l'enseignement va, va s'en ressentir. La qualité de l'enseignement va s'en ressentir. Mm la preuve, c'est au moment où nous parlons, on parle d'évaluation en, août et en septembre, mm-hmm. alors qu'on a eu à perdre presque cinq mois. En, deux mois, on veut faire du, du, rattrapage. Mm-hmm. Ça aussi, c'est vraiment une illustration que la qualité de l'enseignant n'est pas la préoccupation de l'État. Ce qui l'intéresse, c'est que, quoi qu'il fasse, la camisole de force va être euh, imposée à l'école coûte que coûte pour sauver l'année scolaire. Alors que la qualité, ou bien en tout cas le, quantum nécessaire pour euh, valider une année mm -hmm. n'est pas au rendez-vous. Oh, c'est oh. donc une manière de dire encore une fois que vraiment nous sommes euh, de voir des autorités qui ne comprennent pas vraiment l'enjeu de l'éducation. Parce que avant tout, c est, doit être la qualité. Avant tout, ça doit être un cadre où l'enseignant, le couple enseignant-élève doit s'épanouir. et on se rend que vraiment toutes ces conditions-là ne sont pas réunies. Donc vous auriez préféré quoi, SG euh, Je me dis qu'à... Nous aurions préféré, comme on l'a proposé uh -huh. en son temps, qu'on euh, rattrape les cours jusqu'en septembre, euh, jusqu'en décembre, et on, fait l'évaluation en décembre et on, euh, la nouvelle année démarre en janvier. Uh-huh. C'est ça que nous avions, nous avions proposé. Donc, et je crois que nous ne sommes même, même pas les seuls que même des experts de, de, de, de l'éducation l'ont fait. L'ont fait. Mais comme l'on dit donc, euh, c'est presque une manière d'imposer de, euh, cette évaluation avant septembre pour permettre aux enfants des nantis d'avoir la possibilité d'avoir la prescription pour aller à l'extérieur. Mais si... ne doit pas, cette minorité ne doit pas imposer quand même euh, manque de qualité au niveau de l'école. Nous, nous, nous disons jusqu'en novembre, début décembre. On évalue en décembre et en janvier, mhm. la nouvelle année euh, va être au rendez-vous. si je vous comprends bien, l'US est contre cet allègement euh, qui, selon le ministre, fait partie d'une adaptation du programme et du contexte également. Non, seulement nous sommes contre l'allègement, mais nous sommes aussi contre ce, ah. raccourci. consistant à diminuer, en tout cas à vouloir rattraper l'année rattraper les cinq mois perdus mhm. en, deux, mois. C'est ça, voilà, c'est ça. Nous disons qu'on peut pas rattraper ce qu'on a perdu dans, dans ce c'est pas possible. Monsieur Nia, toujours sur les mesures euh, du gouvernement dans ce contexte de reprise en ce qui concerne les mathématiques, le ministre avait annoncé un réajustement euh, différent de ce que vous venez de citer. Est-ce que là aussi vous êtes de cet même avis, euh, puisqu'on voit que les mathématiques non, non. ne seront pas allégées comme on le oh. fait dans les autres matières est-ce que tous nos programmes peuvent être achevés en ce laps de temps C'est mmh. je parlais. On n'a pas allégé pour les, on a allégé pour les autres parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas terminer le programme en hein, ce laps de temps. Mais moi, je dis même que, en, en, en quels que soient ces allégements, on ne peut pas rattraper ce, qui, ce, qui, ce, dont ils parlent. Pour les mathématiques, encore, c'est plus grave parce qu'ils disent qu'il faut l'intégralité du programme, alors que le temps ne le permet pas. à moins qu'il y ait de, ce qu'on appelle du, du nous, c'est ce que, ce que, va être au rendez-vous. Et, quelle lecture euh, faites-vous justement de ces deux euh, tendances Les mathématiques seront étudiées euh, dans leur intégralité, les autres matières seront bâclées. Quel est le message qui est donné à travers ceci Mais même les mathématiques vont être bâclées, même plus bâclées, parce qu'on on, on te donne un programme avec un temps qui est tellement, réduit que tu ne pourras pas la chose Je crois que c'est, c'est, tout, tout va être bâclé. Mais euh, je comprends aussi les préoccupations parce que les mathématiques, c'est à la limite une discipline de base qui doit euh, euh vraiment être pris au sérieux. Plus au sérieux même que parfois les autres matières parce que euh, parfois tu as besoin des de, de, de mathématiques pour faire de la géographie, pour faire de l'histoire, pour faire euh, euh, en tout cas beaucoup de beaucoup de matières. Donc mm. c'est à base peut-être des des des des des, des matières. c'est ce qui mhm. explique peut-être que euh, se sont rendus compte qu'il faut tout faire vraiment pour achever ce programme. Surtout que encore il y a aussi une continuité. mm Il y a une continuité de classe en classe. C'est pourquoi donc euh, ne pas ne pas faire l'intégralité à la limite c'est créer un vide euh, au, niveau, au niveau de, ce, système. Le gouvernement avait aussi promis des mesures d'accompagnement. Avez-vous, des semaines après cette reprise, fait un travail de terrain pour voir l'effectivité euh, Malheureusement, nous n'avons pas pu aller au niveau des régions jusqu'au moment où, nous vous parlons. Mais vous avez eu écho quand même. on a eu écho, effectivement, que les, les, les, les, les, les, en tout cas, les mesures barrières dont on avait parlé, mmh. pour la majorité des, des, des, des, des, des, des écoles, n'est pas au rendez-vous. Seulement, euh, compte tenu du fait qu'il y a un relâchement général, les gens ne, ne, ne, ne font même pas attention mmh. euh, à cela. e je crois que c'est pas seulement au niveau de l'école, c'est parce que partout, on a l'impression que euh, c'est le relâchement à tous les niveaux. Et l'école étant dans la société, il va s'en dire que ce se passe dans la société, c'est ce qui se passer au niveau des, des établissements. Mais nous devons nous réjouir aussi du fait que euh, l'État s'est limité à peut-être faire euh, rejoindre les, les, les, les, les classes d'examen. Mm -hmm. que cela a eu un impact peut-être euh, positif mhm. euh, euh, la situation. Mais ce mhm. qui est sûr, ce qu'il a au niveau de l'école, c'est ce que nous voyons dehors. Il y a un relâchement général. Ce relâchement, pour ces élèves en classe d'examen, de manière générale, hein, euh, dans ce contexte particulier euh, de ces élèves qui sont en classe d'examen, n'est pas sans conséquence, puisqu'on a vu que des élèves ont chopé le virus à Jourbel, par exemple. Cela risque d'avoir également d'autres conséquences en tant que parent d'élève et également enseignant. Quelle lecture vous faites de ce relâchement et de ces mesures non respectées Mais ce que nous avions dit, encore une fois, c'était d'attendre que la tendance baissière soit euh, euh, présente pour mmh. rejoindre les classes. Mm-hmm. Nous, ce demandé, c'était d'attendre septembre. Mm-hmm. De septembre donc à décembre, on pouvait rattraper. Et espérer que, compte tenu du fait les experts avaient dit que peut-être avant la tendance allait baisser, mm -hmm. moins de euh, risque. Euh, c'est l'État qui prend sa responsabilité, mm a eu à forcer et à ouvrir les écoles. Nous, ce que nous, tout ce ce que nous déplorons, toute, toute contamination, que ce soit ou bien au niveau des, des, des, des enseignants. enseignants. Mm -hmm. oui, oui, sommes conséquents par rapport à la proposition qu'on a eu à faire. On avait demandé qu'on attende septembre pour réouvrir et aller jusqu'en décembre pour avoir euh, non seulement plus de temps, mais en plus aussi euh, minimiser les risques de contamination. Mais attendre également à ce rythme, on a vu que la courbe, tantôt Elle est ascendante, tantôt elle est descendante. Euh, Aujourd'hui, est-ce que l'attente également aurait euh, constitué euh, un avantage pour le gouvernement ou pour l'école sénégalaise mais, Mais il faut mettre euh, cela en rapport avec le relâchement y a eu au niveau des décisions euh, des autorités. Parce mmh. qu'au mm. début, vous avez, vous avez vu, il n'y avait pas de confinement, mais il y avait des mesures hardies mmh. qui, à la limite, euh, combattaient cette pandémie. Mmh. Et c'est à a certain moment où les autorités ont eu à prendre des mesures de, qui, qui, ont, qui ont expliqué ce relâchement-là. Mm-hmm. Si on avait maintenu le, le rythme d'avant, peut-être que cette tendance n'aurait eu euh, euh, ce niveau. Ce niveau. Mhm. C'est pourquoi donc nous disons que nous, avions dit, euh, euh, en tenant compte aussi des points vue des experts, le président de la République lui-même avait dit que les experts euh, septembre, la tendance allait baisser mhm. Donc c'est tenant compte de cela qu'on avait eu à à ah, animer ah par rapport à, septembre. Le de ce mois, professeur euh, Monsieur Nian, le G7 et le MEN, le ministère de l'Éducation nationale, se sont entretenus par visioconférence sur ce déroulement justement de l'année. Est-ce que vous du G20 avez eu écho nous avons eu écho, mais, rien n'a bougé, à part que à part que euh, comme nous l'avons dit, mhm. c'est en fait euh, une école au, rabais, des évaluations au rabais qui sont euh, à la limite mhm. Vous voyez bien que même pour le, passage, euh, pour certains, certains, certaines classes, on, n'évalue pas. Personne ne redouble. Personne ne redouble. les les moyennes c'est presque de de de de de de de de huit. quand on est à à à à huit de moyenne il a la possibilité de passer en classe supérieure. huit et neuf oui huit et neuf. mais mais c'est une décision c'est une décision jusque là pas encore validé par les IA et oh, IF. Non, mais, mais, mais proposition. Et uh-huh. nous, nous disons que cette proposition est en rapport avec les mesures qu'ils ont eu à prendre. Encore une fois, on essaie de sauver l'année, euh, quitte à faire du n'importe quoi. Donc, pas, ils lancent pas, leur de sont en train de lancer leur ballon de sonde, selon vous. Mais bien sûr, bien sûr. Et ça va être entériné, vous verrez bien. Ça, va être entériné. c'est évident. Parce que ceux qui sont là, les experts, mhm. les syndicats qui devraient leur dire non, ont participé à la chose. Donc, ils n'ont plus la possibilité de, de, de, de, de mettre en cause. Nous, ce que euh, la, la, tendance d'une évaluation au rabais euh, n'est que la conséquence des décisions qui ont été prises, des décisions malheureuses qui ont été prises. Donc, qu'auriez-vous préféré, euh, Monsieur Nia Qu'auriez-vous donc... Euh... Mais, mais, mais, ce que nous aurions préféré, nous l'avons dit. Non, euh, sur cette la, moyenne, euh, aujourd'hui, la situation, est, là. Euh, on est obligé de faire avec. Donc, vous auriez préféré que la moyenne soit à quel niveau pour permettre à ces élèves de passer en Non, de parler de moyenne, nous aurions souhaité que les élèves aient le niveau d'abord. Et, et, et, ça, et à mettre en rapport avec la proposition qu'on avait faite de démarrer les cours en septembre jusqu'en décembre. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc on a assez de temps pour euh, non seulement euh, le gap qu'on avait eu à perdre par rapport aux grèves et, euh, à, la pandémie, mm-hmm. mais en plus nous demandons que ce qui était fait pour le le, le, le fasse. cest à la moyenne soit au de 9, 9, 5, 9, 9, 50 mm -hmm. Donc c'est inadmissible qu'un qu élève ait 8 et qu'on lui permette de, de, de, de 8 passer, et 9. Lui donne la possibilité 8, de euh, non, non, non, non, ils ont dit, même ceux qui ont, non, même ceux, de, ceux, qui ont, ceux qui ont, la possibilité, à la limite de, de, de, de, de, de faire la réclamation, on leur donne la possibilité d'être testé pour en classe supérieure. Tu n'as pas bien lu. Ah, D'accord. Mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, monsieur Nyan, aujourd'hui, donc vous faites allusion à ces élèves en classe d'examen intermédiaire Mais partout, je dis que, encore une fois, c'est en fait une évaluation globale qu'on a eu à faire en rapport avec les décisions qui sont prises. Mm -hmm. De toute façon, si vous euh, exigé que euh, la moyenne soit de 9, comme de par le passé, mm -hmm. ou mais il va sans dire que l'hécatombe sera là et les gens se rendent compte que vraiment les élèves n'ont pas eu euh, à avoir un niveau leur permettant d'avoir cette évaluation-là. Et cela est d'autant plus euh, grave que vous avez vu avec l'éducation physique, mhm. ils ont été obligés euh, de, se rendre compte que c'est une discipline comme les autres qui doit être objet d'évaluation. Et justement, sur, ce, sujet. depuis lors, depuis lors, il n'y a pas eu de cours d'éducation. Il n'y a pas de cours et pourtant, les examens, on a maintenu cette épreuve physique. L'AS également. Voilà, voilà, voilà, ça prouve une fois le manque de respect de de ces, de Ça, vraiment, on n'a pas eu à faire des et on veut évaluer. Et on évalue sur deux, deux, deux, deux matières. Le saut et, la vitesse. Donc, vous pensez que l'on a complètement échoué sur ce dossier de l'éducation Complètement, complètement. Et à qui la faute selon et au départ, Et au départ, Mmh. à mettre en rapport avec euh, l'ouverture forcée qu'ils ont eu à Donc la date d'ouverture. Et, aussi, là, les de l'évaluation aussi ont été des dates qui ne sont opportune. C'est prématuré selon vous Tout à fait. On l'a toujours dit. Il fallait exclure en décembre. Je donnais le maximum de, temps pour faire un rattrapage sérieux. Et à qui euh, la faute, euh, Mais la, qui la faute C'est le gouvernement, d'une manière générale. Mais le, gouver le, gouvernement s'est toujours concerté avec des acteurs pour prendre ces décisions. Mais pas, tout, tous les acteurs. Les, les acteurs euh, qu'ils euh, ont choisis. donc vous pensez en, que ça nous, en tout cas nous nous sommes des acteurs personne ne nous, nous de de de de de parler parce que nous savons que l'expérience qu'on a eue de ce système là beaucoup de gens qui sont là ne l'ont pas encore quand quelqu'un fait presque plus de vingt dans le système trente ans hein, euh, euh, au moins on doit l'écouter on doit l'écouter surtout que c'est en fait euh, des choses condition la qualité de, de, de, de, de l'éducation d'une manière générale. Mmh. n'a pas à avec qui parler. on prend toutes les idées, on, on, les plus bonnes et on les applique. C'est qu'il y a lieu de faire dans un système sérieux. Monsieur Nia, euh, je ne parle pas de ce contexte, mais aujourd'hui, l'éducation euh, déroulée euh, comme ça, est-ce que le Sénégal a eu à faire face à une situation pareille ah. mais une situation qui fait que l'éducation est assez perturbée pour donc réorganiser et évaluer, réévaluer le calendrier scolaire. Est-ce que le Sénégal... En tout cas, on, a eu, on, a, on a par le passé, une année blanche. On a eu une année invalidée. Mm -hmm. Mais moi, j'aurais préféré même avoir une année blanche que de créer une année où tout le monde est convaincu que la qualité n'est pas au rendez-vous, parce que c'est un sacrifice de toute une génération. Aujourd'hui, quand, quand, quand, quand, on néglige une année dans la carrière de, de, de, mhm. c'est à la limite euh, euh, des répercussions qui vont se faire dans les années qui vont venir. Ça, c'est encore pire. Mhm. Moi, j'aurais préféré même, euh, je ne suis pas pour une année blanche. Ça, c'est évident. J'ai dit que nous aurions souhaité qu'il y ait un rattrapage et une évaluation avant euh, d'entamer une autre année. Mais j'aurais souhaité l'année blanche que ce qui est fait au moment où nous parlons. Aujourd'hui, euh, vous vous souciez du quantum horaire et pourtant, il y a de cela Euh, trois voire quatre ans, hein, il y avait assez de perturbation dans le système scolaire qui a fait que les élèves sont restés des mois sans pour autant faire cours. Est-ce que ce n'est pas la même chose Et pourtant, il y a eu des examens. c'est pas, la même chose parce que euh, on se donnait le temps de, demander aux, enseignants de donner leur avis. Uh-huh. Et aujourd'hui même, les, les, gens du G7 euh, ont dit été associés à, à certaines décisions. Mm -hmm. Ces décisions-là, c'est des décisions qui leur, ont, qui leur sont imposées. Mm -hmm. On ne leur a pas demandé euh, euh, le, le, le, leur avis. Parfois même, ils se sont plaints euh, publiquement. Mm -hmm. Donc, euh, euh, de, de, de, de, mes souvenirs, je n'ai pas d'une année pareille. Mhm. En deux mois, on veut rattraper

mais est-ce qu'on peut espérer avoir des résultats au-delà euh, de ces résultats qu'on a eus ces dernières années, vu que le programme a été allégé Mais, mais, c'est, cet allègement, c'est ça qui n'est pas normal. <laughs> On aurait dû donner le temps de faire un rattrapage sérieux de l'intégralité du programme. Mhm. Parce qu'on ne crée un programme euh, en rapport avec... Euh, de quatrième est en rapport avec celui de, de, de, de, de troisième et de cinquième. Il y a une continuité surtout pour certaines matières. Ce qui explique qu'en mathématiques, ils refusent de le faire. Mais même pour les autres matières aussi, c'est la même chose. Mm -hmm. C'est pourquoi donc nous nous disons que ces élèves-là n'auront pas le niveau. pour l'évaluation, on évalue sur ce qu'on a fait. Mm -hmm. Si je te donne deux leçons, j'évalue sur ces deux leçons. Tu as peut-être des chances de passer. Mm -hmm. Et ça pas dire que tu as eu le, le, le, le profil nécessaire pour passer en classe, en classe supérieure. C'est ça, c'est ça, c'est le bas blesse. Mais si les choses se passent normalement, on évalue comme on évalue de le passé, mm -hmm. c'est sûr que l'équateur serait au rendez-vous. Mais comme vous l'avez dit, il y a un allègement. Euh, c'est la, la qu'on qu donne aux élèves de passer, mais sans avoir le niveau. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Gougnagna, le secrétaire général de l'US, l'Union des enseignants du Sénégal, également vice-coordonnateur du G20. Lors de cette rencontre, toujours, le, ministère a fait part de la Commission nationale de mutation des enseignants euh, qui donc est prévue euh, du 31 août au 7 euh, septembre. Euh, est-ce que le contexte est propice pour également ces mutations nous, sommes dans une, situation exceptionnelle. mais ça n'explique pas qu'on euh, refuse aux enseignants d'avoir la possibilité de, bouger. Mm-hmm. je pense que euh, n'a pas de rapport avec le contexte. Mm-hmm. S'il y a possibilité de donner aux enseignants euh, euh, la possibilité d'aller là où ils s'épanouissent ça va déteindre sur la qualité de l'enseignant. Donc, euh, bienvenue sur ce mouvement. Nous sommes à la veille également euh, des, de la tabaski. Euh, les avances euh, dues aux enseignants contractuels euh, dans votre euh, coordination qu'est le G20 et l'US également de manière particulière, est-ce que ces problèmes euh, connaissent des avancées? Oui, mais nous, nous l'avons posé partout. Et le gouvernement avait donné l'assurance que Euh, à partir du 15 euh, les, les ces avances-là allaient être données parce que ce qui est, ce qui est à dénoncer mm -hmm. c'est qu'il y ait une rupture d'égalité entre les enseignants mhm. on ne peut pas utiliser euh, des agents même s'ils n'ont pas le même statut ils doivent être traités de la même manière parce qu'on leur demande la même chose on leur demande de tenir des classes d'être au rendez-vous euh, dans ces moments très difficiles mhm. et on paie l'avance tabaski à d'aucuns et on laisse d'autres en rade. Ça, c'est vraiment une rupture de qualité. Mhm. Donc euh, le paquet dont il parle, non seulement il n'y a pas la qualité, mais il n'y a, il y pas d'équité. Équité là, vraiment c'est pas la première fois aujourd'hui on a parlé d'avance de tabaski, d'avance tabaski, mais même pour les salaires. Ah à la fin du mois, on paie les fonctionnaires eux, ils sont parfois obligés d'attendre jusqu'au 8 avant de percevoir leur salaire. Donc nous disons que ça, c'est à la limite aller dans le sens de frustrer ces enseignants-là, ces enseignants contractuels. Mmh. C'est pourquoi donc nous demandons vraiment que euh, cette équité dont ils parlent soit euh, euh, appliquée, prise en compte au niveau du traitement des enseignants. Mmh. Oh, Alors, mmh. nous sommes aujourd'hui le 17 Et beaucoup de euh, contractuels n'ont pas encore perçu leur avance tabaski. C'est, c'est, c'est, Et c'était annoncé pour le 15, voilà, voilà, pour le 15 aussi, aussi que même, même pour cette tabaski aussi, uh -huh. 50 comme avance tabaski, ça, ça, ça ne peut même pas acheter euh, Donc c'est petit, selon vous. Dans le sens de, de, de, de revoir à la hausse en tout cas pour ceux qui sont peineurs euh, au moins cent mille francs ou bien cent cinquante mille francs avoir mhm. un mouton mhm. parce qu'on parle tabaski la tabaski ce qui focalise l'attention c'est c'est le mouton et aucun mouton euh, euh, ne peut à moins que ce ne soit un agneau ne coûte cinquante mille francs c'est pourquoi nous avions demandé aussi que l'État la hausse cette avance tabaski Euh, c'est vrai que euh, le baccalauréat, c'est une affaire du ministère euh, de l'enseignement supérieur, euh, mais euh, ce sont les enseignants du moyen secondaire qui corrigent, qui également surveillent les candidats. Aujourd'hui, les déplacements qu'on notait également lors de ces examens, pensez-vous également que ce sera effectif cette année? Mais l'État va se frotter les Vous savez que les en tout cas pour le BFM, mmh. le mm. déplacement est en rapport avec euh, euh, le défraiement. Mmh. Maintenant, plus tu, tu, tu, tu, te déplaces, plus euh, euh, l'émolument va être plus, plus, plus, plus important. Et l'État, l'État va, euh, en tout cas, avait tendance à ne pas déplacer euh, certains enseignants. Vous vous, vous rappelez, certaines années, les gens se plaignaient de corriger même pour euh, les copies de leurs, Parce que, oui, oui, parce que l'État refusait de les, déplacer pour ne pas avoir à payer par la suite. Uh-huh. Euh, donc euh, cette, cette, pandémie va être même une occasion pour l'État, à la limite, de faire ce qu'il avait toujours de faire des économies. mais absolument, absolument. ils, sont même empêchés, de le dire. En, en, disant qu'ils vont minimiser les déplacements à cause de la pandémie. Mais ils, entre autres, Je que ce qui les motive le plus, c'est ne pas sortir de l'argent encore. Monsieur euh, on a vu que nous sommes en période hivernale et aujourd'hui, euh, d'autres zones pleuvent beaucoup plus qu'à Dakar et il y a également des abris provisoires. La situation actuelle qui défavorise certains élèves et certains enseignants euh, dans ce contexte de reprise, euh, comment jugez-vous cette situation? Mais Elisabeth, je reviens plus sur notre proposition Tout le monde avait pris en compte aussi cet aspect de l'hivernage en faisant la proposition de septembre. Parce que nous savons que le maximum pluviomètrique se déroule souvent en, août. Mm-hmm. Et après août, il y a une tendance euh, à la baisse de, de, de, en année normale. Mm-hmm. Donc, euh, réouvrir les classes en plein hivernage où on n'a pas eu le euh, pic pluviométrique, mm -hmm. Eh il va sans dire que la conséquence est, comme vous l'avez dit, une rupture d'égalité au niveau des, élèves selon les régions. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui la formation des animateurs polyvalents n'est plus d'actualité Si, n'est plus d'actualité parce que l'État a pris en tout cas l'engagement de les, de, les, de les former en deux cohortes. Ils sont au nombre de, de 300, et quelques, la moitié va être formée et ensuite l'autre va suivre. Maintenant, euh, euh, euh, je crois qu'il faut aller vers l'application mm -hmm. de mhm. ce qui a été objet d'accord. La pandémie a montré donc des failles sur le système éducatif de notre pays. Aujourd'hui, que vous proposez à l'avenir comme solution, même s'il si n'y aura pas de catastrophe, pour un peu changer et redorer ce visage de l'école du pays je crois que l'école a deux problèmes. Le premier problème, c'est que les autorités qui ont en charge cette, euh, euh, euh cette dernière ne lui donnent pas l'importance qui s'y est. Ah. pourquoi donc ils prennent des mesures qui vont à l'encontre de ce qui doit être euh, l'objectif de l'école, c'est-à-dire former des gens à la limite euh, tous élèves du monde. Donc la qualité doit être au rendez-vous. Il y a aussi qu'il y a les moyens qu'il faut mettre sur, sur, euh, en place. Une éducation requiert beaucoup de moyens et l'État doit être conscient de cela. Ces problèmes de moyens-là ont des répercussions partout. parce que s'il n'y a pas euh, une motivation des enseignants, il va mm-hmm. sans dire que la qualité va s'en ressentir. S'il y a une frustration au niveau de ces enseignants, la qualité va s'en ressentir. S'il n'y a pas d'intrants euh, à la mesure de la qualité que nous voulons aussi, il y aura toujours euh, manque de qualité euh, ou de formation au, au rabais. Mm -hmm. C'est pourquoi donc nous demandons que ces deux paramètres soient pris en charge. Par ailleurs aussi, il faudrait que ceux qui ont, euh, les techniciens, les, les, ceux qui prétendent être des techniciens, soient assez courageux pour dire aux autorités, c'est pas parce que vous êtes politique que vous voulez cela que ça, doit se Il y a des choses qui sont incontournables quand on, doit enseigner. Le temps, par exemple, Euh, on ne peut pas enseigner sans tenir en compte le temps. Mhm. On ne peut pas rattraper, par exemple, si je prends l'exemple de cette pandémie-là, rattraper cinq années de, cinq mois de perte en deux mois, c'est pas possible. Parce que euh, quand on enseigne, même le cours que tu fais, tu le, tu le programmes dans le temps. C'est donc le temps doit être pris en compte. Malheureusement, les autorités ou bien les techniciens ne, font que de, la politique. Parce que quand on septembre, des techniciens s'accordent à aller dans ce sens-là, euh, que l'école n'est pas une priorité pour euh, ceux qui nous dirigent, mais pourtant, il y un budget de 526 milliards qui est octroyé à secteur. Alors, selon vous Comment mais, mais insuffisant à mon niveau. C'est un budget insuffisant. C'est insuffisant. Parce Et eh géré. L'éducation, l'éducation, je dis que l'éducation, en dehors même de ce que fait l'État, mm -hmm. le, les, les, parents de les participent. La coopération aussi internationale participe, mm mais il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. La preuve, c'est qu'on prend des enseignants qui sont de plusieurs statuts. Et ça, ce qui l'explique, c'est juste un besoin d'économie. L'idéal aurait été d'avoir euh, euh, euh, assez, non, assez non, non, assez d'élèves, mm assez d'infrastructures, mhm. mais aussi des enseignants avec un seul statut, motivés. C'est ça qui peut expliquer, qui peut en tout cas éviter la qualité. Mm -hmm. C'est mhm. ça qui peut éviter aussi la motivation au niveau de non seulement des, des, des, des enseignants, mais aussi des apprenants. Mm on se rend compte que ce manque de qualité, euh, euh, à la limite, euh, on le trouve même dans les infrastructures. Vous avez parlé d'abri provisoire. Est-ce mm -hmm. que euh, ce budget est assez Quand on de rend compte qu'il y a des, des, abris provisoires, c'est la preuve que ce n'est pas suffisant. Les, les, enseignants, je vous l'ai dit, au moment où nous parlons, il y a des gens qui n'ont même pas la possibilité d'avoir leur avance tabaski. Il y a des enseignants qui, qui ne sont pas payés le, le, le, le, 30 à la fin du mois comme les autres. Ça veut dire tout simplement qu'il y a lieu de revoir les choses. Si vous entrez aussi dans les classes, vous voyez eh, les, les, les, intrants. Parfois même, il y a des, des établissements où il n'y a pas de craie. C'est donc dire vraiment qu'il y a des, des, des difficultés. Maintenant, on parle, on parle d'un budget de, de, de, de, de, de, de, de, de milliards, mais ces mm. milliards-là ne vont pas dans la classe. Ah. Et la qualité, Non, ça, ne va pas dans les classes. y a les séminaires, y a, il y y a, il y a tout. Hein. Il y a tout. Il a aussi les, les, les, les salaires. Les salaires qui, à la limite, de, euh, beaucoup, beaucoup, de cet argent, une proportion importante de cet argent-là. Il n'y a pas d'investissement. Et chaque année, l'effectif des classes augmente. Oui. Les demandeurs, les demandeurs sont de plus en plus nombreux. Ça, ça des problèmes. C'est pourquoi donc nous disons que le budget doit être encore relevé. En tout cas, les, les ressources euh, qu'on ces ressources-là sont insuffisantes. Donc, ce manque de volonté est lié à ce manque ou à cette insuffisance de ce budget, selon vous tout à fait, tout à fait, Et ça se déteint, si ça, se manifeste par les investitures que nous voyons. Il y a la détérioration de, de lycées qui sont très anciennes, qu'on doit réfectionner. Mhm. Il y a aussi les abris provisoires qui, à la limite, euh, doivent être résorbés. Mhm. les, les, les, enseignants aussi ne pas motivés, vous le voyez bien. Euh, donc dire qu'on a besoin de ressources additionnelles. c'est une condition pour vraiment euh, que la qualité soit euh, au rendez-vous. Euh, au rendez-vous, voilà. Monsieur Nyagounianya, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre la plume. C'est moi. Et juste les perspectives de l'US Puisque le G20, on attend le comité scientifique pour en parler. Les, perspectives euh, immédiates du G20, c'est de booster, de l'US, de booster le G20. Mm mm-hmm. participer pour que, comme vous l'avez dit, que les questions qui sont objets d'accord, les accords soient respectés et appliqués. Mais aussi euh, aller vers, un congrès euh, où vraiment il y aura un renouvellement peut-être de, l'équipe mm-hmm. en espérant à la prochaine élection Euh, l'US va sortir euh, parmi les, les, les, vainqueurs. Vous faites allusion ah, à l'élection qui doit De représentativité. Tout à fait. Donc vous y êtes déjà dans les préparatifs. bien, sûr, dans les préparatifs, c'est peut-être la pandémie qui nous a un peu même freiné. Mais comme je vous l'ai dit, nous étions dans les régions avant cette pandémie-là pour les besoins de, renouvellement. On fait le renouvellement en même temps, on amorce